Muhammadul Muntaxa yàlla na fi àgg te ak njabootug sëriñ Tuubaa gi yëpp di ziare sëriñ Cheikh Jëmb Fall ak njabootug maam Cheikh Ibrahima Fall yëpp ak seex yëpp di ziare sunu bunt ci sëriñ Tuubaa muy sëriñ Moustapha Mbaye xalifa maam Cheikh Sadie Mbaye ak sunu wasila sëriñ Xaadim Mbaye moom Cheikh Massamba moom seex Sadie ndi ziare mboolem ñun bokkal plateau bi Baye Abdoulaye Lam nga xam ne moom nu jëkk jox micro ñu yëkkate ci télévision. ñu ngi koy fàttaliku saa su nekk ak suñu bàyyi Abdoulaye Mbaye Peex nga xam ne dañoo bokk lu bëree bëri ak sëriñ Cheikh Mbacke Mbuub di suñu mbokk di suñu wëlëri di suñu mbokkum taalibe ñuy dajee lu bari ci àll muy ku baax ku yaatal ak sëriñ Saaliw Xule mi nga xam ni moom it sëriñ bi rek ko nekk ci kër gi ñu ngi koy ziar bu baax di ziare soxna Faat Abdou di ziare soxna Nene di ziare sëñ Abdoulaye Diop Bisri mi nga xam ni kenn la ci kër sëriñ Touba. Eh, sunu borom fàggul ñu ko yàlla na ko fi yàlla yàggal te may ko wér di siyaare sëñ Mouhamed Mbaye mi nga xam ne moom it soo ko seetaanee sa dana sedd lool ci Seydouna Mouhamed ak mboolem ñu baax ñi muy waxtaanee di siyaare ñi ma àndal mu ñetti xaadim yi sëñ xaadim Sarr sëñ xaadim Ngom sëñ xaadim sekk eh, ak Moustapha Seck kon ñu ngi siyaar ñëpp jërë ngeen jëf bu ko defee ñu bari barkeelu ci xaside yi فتاه عبلي فران خجوري عجبان يا خيرات عدا خمرا وعيرانا دفت الكريم الذي يغري بكن أبدا وأنواع ونفي تبايا خدانا جبت الكريم الذي في البر كرمني والباري ساخني بالفيد خرانا لو ختابي يوم سبت في وطني وبان لي أمس ما خسار برانا أبلي بفضلك كوني سرمدا فران للمسلمين وخلد فيك بسرانا نباتي عن سد فيدا ومعرفة وسرمدا في نبي ربي إسانا اجعل رجوعي إلى قوم سعادتنا ولتكفنا يوم جميع الخلق نيلانا اجعل رجوعي إلى قوم سعادتنا ولتكفنا يوم جميع الخلق نيرانا عبلي بفضلك كوني سرمدا فارا للمسلمين وخلف فيك بسرانا ملك لي اليوم سيا لا يفارقني من البسارات في دار جيرانا عليك وصلي بأبكار أجيب بها من القيود التي تنسب ويدانا لسوق دواما فتوات أكون بها أسرى لمن بهدى الإسلام خدانا أنت العليم الذي علمت اسمك ما فأخذ بيتيك ميدانا فميدانا ثبت جناني وسدد منطقي وخني لنا بإقدام ما قد كان وجدانا يا سلي اليوم يا أرجو وابلي تقديم وارجوانا ربيتني رب في الأداء مغتربا أتى رجوعي للأوطان خطرانا مالك بيتك ما yaxtaaru min kabila makrin wala salabin wajalu misaana maliku yaa rabbi maa faaxal muna karraman yaa man yusayiru man xad jaa sabana naa jaaka murtajiyan an laa tuxaybahu ولتكفي يوم بعد الخلق ميزانا غيب رجاء الذي يغني في أبد من آمين وكان العج ميزانا لقت بلام أجرا لن قتال في كل ما فيك ينوي منه دنسانا غلب قلوبا يرضى ترا لنصرته في البر والبر يا من انت لنا ناجانا مرتجيا ما رام في عجل يا خير من أمه من كان عجلانا أنت المعيط الذي أبخي بخابي دنيا وأخرى فابل الأودى مولانا تركت ما كان لي بالبي مبتخيا ما عند من يخدي آجة لنا بدعوى ورسول بكلانا دخلت لاجلا بالبدر ما مددي أتى غيم لدين الله يركانا يسر رجوعي لتوبة توبة توبة توبة كسب سري توبة يسر رجوعي لتوبة ومني وخني asal wara wal tutibli sama istaana laka sama wal ara diiwal hawa ubila musaarikin yarun mansir ko baana aji wasalli bi tasmin ala sanadi muhammadin wal taat bi faayi xan baana subhaana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salaamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin xool yëpp daanaka